bu baax di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp daan coronavirus ak RFM boobaak léegi ñu ngi ci ak yéen ci kàttanu sunu borom altine ba ajjuma ñu ci ànd ak borom xam-xam ci wàllu kër docteur waaye secteur yeneen yépp nga xamante ni mbas mi daf caa ami njeexite muy économie euh, di wàllu social gi euh, di wàllu caada gi ak feneen ngir xool rek euh, nu nu ko dundee boobaak léegi nees mën a dal di taqaliko ak moom. ci jokkoo beeg ñun docteur Abdoulaye Bousso mooy jiite centre des opérations d'urgence sanitaire docteur Bousso ñu ngi lay ziar bu baax rafetlu sa and ak ñun RFM. Euh, maa ngi lay nuyu sëñ rajo euh, Sane di nuyu seen auditeurs yi. remercier ci invitation merci euh, centre opération d' urgence sanitaire da ci gàttal ngir ñu nuy déglu mooy xam naa kër gu nu taxawal ngir bu amee lu këtt ne jonn ci wàllu urgence ci wàllu wér-gu-yaram ñu ñu taxaw ci. waaw <clears throat> ci benn ci benn wàll la centre des opérations d' urgence sanitaire benn service la boo xam ne. Hum. moom mooy nekk ci mooy saytu mooy gérer mooy essayer aussi di di prévenir lépp luy am ci urgence mm. donc suñu wàll nekkul rek si mm. bu fekkee jëy bi dafa nekk këtt te jom comme ni nga ko waxee mm-hmm. mais dañu nekk ci balaa jëy bi di am mm. mooy ci lu ñu ci wàllu prévention mooy c'est-à-dire fagaru bi mm-hmm. ba pare aussi di xool est-ce que am na ay jëy yu mun dal ci dëkk bi parce que bu ñu xoolee jëy yi am suñu dëkk yëpp loo xam ne mun nañ ko prévoir mun nañ ko xam lu ñu war a bett te am na ay xam-xam yoo xam ne mun na may ñu xool ko ak aussi nag après nag tàggat système bi tàggat nit yi ba nga xam ne jéey ba bu amee ñu mun ko ñu mun ko gérer. Hum. maintenant nag bu fekkee jéey bi am na aussi am nañ ci wàll ci wàllu organisation ci wàllu mise en œuvre ci lépp li nga xam ne moom la ñu développé ci wàllu préparation hum. bu jéey bi jeexee nag am na beneen wàll mooy li ñaan euh, rétablissement mooy après jéey bi il faut ñu analyser. xool li ñu liggéeyee est-ce que baax na lan moo ci doxul lan moo ci dox lu ñu war a soppi. Hmm. ba nga xam ne léegi dafa am jàngat buñ ci jëlee ba nga xam ne bu bu leneen amee euh, jéey bu mel noonu bu amee dinañu mën a pare nu mu gënee donc loolu mooy suñu liggéey. Hmm. très bien hmm. euh, boobaak léegi euh, naam bi bi muy nuyoo mbas mi yaakaaruñu woon ni dina fi yàggee nii àddina ci boppam sax naka noonu juróom benn weer daanaka waaye démb ñu am quinze cas positif am ci wàllu ñi ñi wér macha allah 129. suma djumul témir ak ñaar fukk ak ñent mm-hmm. docteur Bousso donc euh, dañ leen di féliciter euh, mais rafetlu ko et puis bañ rek euh, di def di modeste modeste lu il faut ñu nangu ne nag ñu ngi defi jéego Sénégal ci it bu nu ci jappé rek léegi mu jeex. waaw loolu moom d'accord naa si c'est-à-dire il faut ñu reconnaître résultat yi nga xam ne moom ñu am mais du ñu féliciter rek peut-être ñun acteur de la santé mais ñëpp la population yi si la ñu bokk. Mm-hmm parce que résultat yi ñu am damay wax ni ça fait quand même presque 7 mois ñu ngi ci ci liggéey bi. donc bu résultat génnee nak dañ ko wara apprécier bon c'est vrai que suñu dëkk bi dafa xaw a particulier toujours l'aspect négatif la ñuy xool. mais quand même ça fait 7 mois am na ay mesures yoo xam jël nañ ko le président de la république jël na ko ministre de la santé jël na ko acteurs sur le terrain yi def nañ ko population yi def nañ ko aujourd'hui nak ñi ngi gis les résultats et ça nak mom il faut ñu nangu en tout cas ñun dinañ ko accepter sans mmh. nak def triomphalisme mais. Mmh. Mmh. loo xam ne lu lu ñu lu laal la loo xam ne lu objectif la loo xam ne gis nañ ko ak fu mu nekk nii kaay ñu ngi junne damay faral di wax nii am na ñaari indicateur pour ñi nga xam ne dañuy dute yoo xam ne kenn mënu ko laam-laame mooy cas grave yi hmm. nee na feebaru lu mu métti metti kenn du am cas grave denc ko sa kër hmm. beneen bi mooy ñi faatu mu nekk deux indicateurs yoo xam kenn mënu ko nëbb te gis nañ ni yooyu ñu ngi wàcc bu baax donc loolu dafay nekk mandarga boo xam ne généralement cas yaa ngi wàcc. Mhm. et ñun gis nañ ko ça fait maintenant cinq semaines yoo xam ne semaine bu ne lim bi ñu am dafay néew ci li semaine bi ci tegu. macha allah mais taxul comme ni may faral di ni mhm, mhm. ñu bàyyi suñ loxo te fi mu nekk nii. lañ xeex bi di war a gën a tar c'est-à-dire fii la ñu war a gën a dëgëral. suñu hmm. taxawaay ci wàllu mesure barrière yi nga xam hmm. ne ñu ngi koy digle. ah d' autant plus que d' autant plus que moom dafa dafa xaw a sew jàngoro ji d' ailleurs est ce qu' il y a des risques que mu daal di def comme def français yi euh, bon ñu ñu baal ma j'allais dire na mu def waa tugal yëpp de façon générale ñu dem bay am yaakaar rek am na lu mel ni seconde vague wala lu lu lu daal di jolliwaat. mais lu mën a nekk la kooku moom euh, ñu ngi koy xalaat moo tax nag ñu ne il faut que ñu. Ni fagor goupa. Sade, bouni nan werek, ni nan yon chalot bi diyanet ki chalounyeb, epi ni yon dekhe, ni yon dekhe baye meziv baryeri, men, lò khamne mounene. Patske bouni kwa le legi tougel dekhe chawou. Mounen dekhe mounene, amnen yon petkou fuki djouni maladi bes, donk lò mounenene. Moun takwek, ni konne, an tou ka sou yon ekipi ki teren bi, an tou ka mis de la santé, nyep, ngour ki kouvertoman bi, nyep, ni gare toujou la men mobilizasyon. et eh, comme li may wax am nañu ay événements yi nga xam ne ñu ngi ñëw donc événement yooyu pour ñun dafa nekk événement yu am solo euh, yoo xam ne bu ñu ko téewee euh, rek dañ am yaakaar bu baax. Hmm. maintenant fi mu ñëwee baaxul. de événement yi ndax fekk na batterie wàññeeku <laughs> buñ ko buñ ko waxul fekk na finance yi wàññeeku fekk na jumtukaay yi également ndax sept mois six mois du ñaari fan kon il faut ñu gën a laxasuwaat. waaw c'est vrai que comme moom laa wax toujours nee naa feebar bi marathon la. il faut <laughs> ñu am endurance. Ah, ñu mun a ménager wu mais mais mais amuñu si ragal parce que xam nga aussi dafay nekk moment boo xam ne au moins résultat yaa ngi génn donc résultat yi buy génnee dafay gën a motiver. donc pour man les les événements yi nga xam ne ñooy vraiment les événements sensibles mooy la rentrée universitaire ak les cérémonies religieuses yi nar a ñëw. yooyu deux événements sensibles bon mi ngi nekk ci dynamique boo xam ne feebar baa ngi Mhm. mais aussi boo aussi bien université en tout cas ministère de l'Éducation nationale on a visité visiter université de de Dakar mais ils sont mobilisés def nañ une stratégie donc ils sont conscients depuis les étudiants jusqu'au corps professoral vous mhm. demain aussi si Villerejet que ngi tout la semaine passée mhm. pareil nous aussi xam nañu xam enjeux des risques yi te ñu ngi def benn préparation sax ñun par exemple visiter Juma ou Touba mais gis nañ fa dispositif boo xam ne amuñu lan lañ ci teg. Hum. ñu ne rek c'est parfait. Hum. maintenant après c'est sur le comportement personnel parce que nous, nga def en place des systèmes. yoo xam ne ci yenn bërëb yi danañ ko respecté mais bu ñu jógee ci bërëb yooyu nag après ñu doxee nu ñu ne donc loolu rek mooy suñu crainte mais incha allah dispositif yëpp dinañ ko teg en tout cas ñaari événement yooyu ba nga xam ne buñ ci génnee daal dañ am yaakaar bu baax incha allah mu des rek ñun askan wi ñu dimbali leen ci ci ngeen dimbali nu euh, euh, scientifiquement euh, ndax jàngoro ji vitesse de propagation bi ak contamination yi dafa wàññeeku scientifiquement wàññeeku na ci Sénégal ñun bu ñu xoolee suñu suñu calcul yi newoon ci mois de euh, entre bu ñu avril mai propagation bi dafa kayoon c'est-à-dire benn contaminé quatre personnes. Mhm. ñi ni ni ngi gën c'est-à-dire aujourd'hui suñu vitesse de propagation du euh, benn nit day contaminé presque un peu moins d'une personne. ni mhm. <coughs> japon aussi ni ni ni ni jàngaru meloon ci ci wéri yi ji njëkk. Mhm. nañ ba bu euh juroom juroom attends juroom ñent fukk nit. dinañu contaminé wu ci téeméeri junni nit. léegi wàcc na ci juróom pour téeméeri junni. donc objectivement si en tout cas chiffres yi am gis nañ ni. mi ngi mi ngi wàññeeku voilà donc loolu moom. Euh, dangaru virus bi dangaru virus bee wàññeeku euh, ndax na na mu soxore woon moo wàññeeku ndax dégg na euh, professeur Raoult wax koy jamono sax donte du toujours la ko ñëpp yi gëm toujours dafay am ay contestation ci wàllu xam-xam ak xalaat waaye moom dafa ne woon dangar gi coxor gi wàññeeku na. en fait yooyu yëpp ay hypothèse la. c'est-à-dire aujourd'hui bon ñu la bu ñuy discuter entre ñun dañ koy wax

parce que nit yu capacité Donc, nañ ko hmm. donc ay hypothèse donc mais du vraiment hmm. nañ mais dañu ni nañ nañ nañ ci ci avec un peu de recul ñun Afrique Sénégal notamment danoo teeloon a tiit rek ji euh, mais mënoon nous continuer suñuy activité xëy na ba ba bañ a rayee ni économie bi yow lan ngay tontu foofu en tant que. buñ ko defoon day euh, coow topp ñu parce que <laughs> non bu ñu xoolee. Mhm. Euh, et loolu c'est objectif ah. cest bi ñu analyser résultats yi. oui dañu gis ne hmm, bi nga xam ne xam nga ñu bëri ñu ngi naan bi ñu amee juróomi cas la ñu tëj frontières yi tëj école yi tëj école daal. Mhm. ñu am xaw ma ay junni ñu tijji yëpp. Mhm. non gis nga moment boobu. bi nga xam ne président de la République dafa jël décision bi mu moment critique moom laa doon wax foofu la jàngoro bi gënoon am doole li muy ñëw bees ci dëkk bi hmm. donc di tasaaroo bu gaaw dafay ñu ñu téye loolu c'est-à-dire tëj école yi di euh, dem dikk bi ci région yi dem moment boobu résultat yi ñu ngi koy doon gis en fait hmm. parce que boobu la ñu téye circulation virus bi donc taxul woon nag bu ñu hmm. xoolee si yaa ngi doon yokk mais gis nga bu ñu ko defal woon heure bi je pense que li ñu am lim bi ñu am dinañ ko dinañ ko mu multiplier par ñett juróom jëm ko Donc, c'était important. D'où une imitation. Je mm. pense que, au contraire, euh, je pense que ce gouvernement est devenu telle et mesure. Mm-hmm. Alors que, vous voyez, il dëkk yi dañu xaar même donc au contraire je pense mm. que c'était des mesures qu'il il fallait les prendre. Uh-huh. après nous consolider ko par les mesures mais taxul aussi war nañ gën a connaître parce que aujourd'hui par exemple masque yi waruñu ko teggi dañ ko rendre obligatoire hmm. ba nga xam ne vraiment jàngoro bi dañ na ci Sénégal ci ci ci wàll ci wàllu jëlum dogal gi maanaam les prises de décision lan moo ci gënoon peser ci balance bi suggestion yéen waa Kër Docteur wala décision politique yi en tout cas li ma mën a wax en tout parce que am naa chance bokkoon ci réunion yi nga xam ne président bi moo ko dirigé woon ministre de la santé nekk foon je sais que ñun suñuy conseil yëpp jël nañ ko en compte. Hmm. Euh, dama leen wax ni am na benn réunion bu ma nekkoon ma ne man président rek dama ko yërëm quoi parce que ñun dañu am suñu xalaat politique am seen xalaat ku nekk am xalaatam te moom dafa war a jël décision. Hmm. mais li ma mën a retenir mooy en tout cas su par rapport à l' aspect sanitaire. président sax dafa doon wax dafa naan doon wax ni bu yéen bu ngeen ma nee dañu war a tëj dëkk bi wax leen ma di tëj ku fekkee loolu mooy ngëneelu askan bi. Hmm. donc effectivement en tout cas nos avis techniques du ministère de la santé rek mais un technicien ou gouvernement yëpp jël nañ ko en compte. Mhm. après forcément, forcément y' a un autre aspect boo xam maîtriser au niveau, oui un aspect politique des aspects économiques il xam ne jouer donc après nous, en tant que technicien dañuy adapté on mhm. s'adapte au mhm. contexte. c'est comme si aujourd'hui ñu école il faut ñu tijji Nous, bi ñu nee rek ni dajaloo baru def mais dañu allons adapter à cette situation ñu ne leen D'accord, d' accord quotidien, bu ngeen ko tijjee condition. ku bëgg a organiser cérémonie lii mooy condition te eh, bu ko ñëpp respecté rek on presse dëkk bi mu mën a dox. incha allah en tout cas jàng nañ lu bari ci ci mbas mi Sénégal euh, di leen jaajëfal di leen masawu mais jàng nañ ci lu mel ni ñàkkum jumtukaay yi quand de façon général plateau technique surtout gox yu xëcc yi ndax euh, malgré njàmbaarte waa kër docteur xereñ gi euh, bu yëf yu oyofoon ci ci moyen du ngeen ni sonne mu ngi mel ni baykat bi nga xam ni jël nga ngoos ngoos ba teg fële jox ko tracteur kon bu ñu jugee ci fii war nañu gën a góorgóorlu ci plateau technique yi dégg naa djumul juumul njiitu mi gouvernement bi nas na sax projet bu ya ci wàll woowu mais bu mu yam ci wax lolou na jëmmu. wa lolou lolou deug la mom parce que moyens yi dafa am solo. Hmm. parce que dañu nek dëkk bo xam aussi du dëkk bu am donc effectivement ci yenn gox yi amoon nañ ay difficultés ba tax na mooy tax toujours bu bu jëy bi amee da ngay obligé di génne ay moyens yu bari hmm. mais comme li nga waxee président de la République euh, wax na euh, jox na instruction ministre de la santé donc équipe yaa ngi liggéey ci ben programme bo xam pour renforcer système bi la te vraiment mom deugul parce que ñëpp gis nañu les euh, système de santé dañ renforcer c'est-à-dire bu ñu génnee ci mbas mi renforcer système de santé c'est qu'on aura échoué mhm. parce que bu fi ñëwaatee on sera obligé de faire la même chose alors que gis nañu am na ay dispositions mais il faut y mettre en place mhm. et même pour ñëpp parce que quand ça tourne ni dëkk bi dañ koy tëj aujourd'hui même boo amoon ay milliards am na moment boo xam ne boo amoon say milliards nga feebar doo Sénégal mhm. donc c'est dans l'intérêt de tout le monde le système de santé de ñu renforcer quoi et je pense que loolu moi, je nan leçon apprise une leçon bi renforcer le système de santé en termes de c'est pas que les moyens du rek moyens mhm. mais en termes d'organisation en termes de réforme Les mhm. réforme aussi aussi président wax nako parce que y a aussi ni système bi di amna il faut ñu soppi ah. manees na ko wax ci rajo loolu fu mu yëf yi sooxee wala da ngay da nga koy dencal sa collègue yi. <laughs> non loolu moom dañ koy dencal kilifa moo ci mën a <laughs> bien ñu ñu ñu wax ci wàllu déchet déchet yi ci euh, déchet Covid noonu la ko suñuy naatangooy observateur xëyee tey ñoom ñu ngi njort Euh, malgré effort yi ngeen def ba fi le centre des opérations d'urgence et cetera lu jëm ci walu euh, déchets yi euh, mbalit mi jógee ci yu paj mi ñël Covid gi mujj doon nak wëlbatiku daldi di maar di IMS doon gàllankoor est-ce que donté hôpital Dalal Jàmm par exemple joxé nañu ay réponses yu dal xel ci walu lakkin wek yoyu est-ce que yow en tant que kilifa ci kër docteur mën nga dalal xel ci fan wo par rapport à ces déchets. non non mën nañ dalal xel li nit yi du problème parce que li li suñu hôpitaux yi structure de santé li génnee ci déchet par jour bu amul Covid kenn xamul lu mu toll moo ëpp foofu li Covid am. Covid bi déjà déchets yi balaa ñu koy euh, ñu koy ñu koy lakk par exemple dañ koy désinfecter déjà première chose parce que lu su bari nit yi ñoo koy sol wala ñuy utiliser pour donc dañ koy désinfecter bu ñu ko désinfecter am nañu ay appareils yu naan banaliser da koy presque stériliser donc côté boobu amul problème parce que am nañu ay. Euh, incinérateurs yi nekk suñu hôpitaux yi. c'est des incinérateurs yoo xam ne c'est aux normes. donc en tout cas pour les populations. oui amul ben ben ben rek. kooku moom affaire très bien ñu ñu jéxalé nga bal ma <laughs> mu ngi bëgg a mais damay jéxalé population bobu ci boppam docteur Abdoulaye Bousso. est ce que neex na no waxal est ce que Sénégal neex na défé communication de crise ndax jamono yu euh, jangoro ju ni garaawee duggee ci réew mi euh, mun na ci jox rek ben exemple bu concernant ñen ñi nan professeur euh, docteur dafa ak yoyu imagine nga ngay wax farata ñuy wax sunna. non non mais lolu pour man ça fait partie de parce que stress bu ñuy dañuy stressé wu. Ah, mais mais mais man pour man. Ah. Euh, et je je lui dis ah xam nga nit dañ euh, population mais non man damay da ngay xol population yi. c'est-à-dire mhm. ñëpp au même niveau. Mhm. mais la majorité des gens comprennent nañu ñu ngi respecté et aujourd'hui ah très bien. sincèrement bu fekkee ñom respecté wu ñoon mesures parce que li ñu wax mom c'est pas c'est c'est clair Par les dire du santé mooy arrêté feebar. Mhm. ñun suñu wàll moy détecter maladie faj leen isoler contacter yore mais wàllante bi c'est les populations. Mhm. donc ça veut dire que aujourd'hui bu fekkee cas yaa ngi wàññeeku. mais ça ne peut être que les populations. nit ñooy soppi dox c'est-à-dire nit yi ñooy soppi dox man dangay gis ñoo xam ne. Hmm. dañuy am feebar après dañuy ragal dem hôpital def test mais xam nañu ah man est-ce que awu mais dañuy fafaru dañuy sol sen masque nek hmm. sen kër isolé wu. donc réflexe yaa ngi fi. donc pour moi te c'est c'est vraiment lo xamné dañ ko wara souligner. Hmm. c'est que c'est les populations ñoom ñooy les premiers soldats. et aujourd'hui résultat yi am nak dañ ko wara délo moo tax ñu leen di ñaan rek ñu continuer ci mobilisation mais sénégalais pour man neex nañu waxal cest dire sénégalais yeeg boo demoon États-Unis am na ñoo xam ne ñu ngi manifester naan duñu sol masque ba pare di porter plainte pourquoi ñu sol masque donc <laughs> comportement yi benn la mm. mais mais j'avoue que fii comportement population bi nag en grande partie moo moo aidé à ce que ñu am résultat yi ñu am au-delà vraiment des mesures yi nga xam ne ñëpp dinañ kon daal mënees na yaakaar ne euh, le bout du tunnel soreetul ndax nag waaw góor day yokk njàmbaar boobaak léegi yàgg na metti na ci ci fànn yu ne mënees na yaakaar daal euh, buntu feeñ. am nañ ci yaakaar. Hmm. mooy moom la wax ni rek de bu tendance yi continuer nii. Hmm. ñu ñu passé événement yi nga xam ne moom la ñu am suñu kanam euh, et nous qui continuons les la mobilisation entre acteurs de la santé, mm-hmm. depuis le terrain, ça fait plus de six mois, nous mm-hmm. Et je sais aussi il une motivation parce que nous, c'est une satisfaction avec moi, épidémie dañ ci Sénégal donc euh, vraiment am nañ yaakaar. am nañ yaakaar bu baax comme avenir bi nag foofu la dépendre ci grands événements yi ñëw. il faudra mettre le plan hein, ci côté boobu bañ a maslaa. wàllu wàllu transport bi wàllu masque yeeg yooyu. de façon buñ ko beral kenn hein, ñi dem Touba mm-hmm. ñi dem Tivaouane ak kuy dem feneen na autorité yi gën a renforcer le contrôle quand même. non non masla boobu kay ñun amuñu même bi ñu demee waxtaan nañu kilifa diine yi foofu. Euh, mais ñoom sax même discours bi la ñu wax. c'est-à-dire mm-hmm. Mm-hmm. dañu naan soit dañ koy respecter. aar leen yéen aar dëkk bi. Hmm. wala respecté wu ñu ko mais yéen njëkk nekk à risque nee naa kilifa diine yi ñooy nekk mag. Hmm. donc euh, pèlerins yi sax ñoo leen war a aar. te dama doon wax ni bu ñu naan bu ñu naan sëñ bi yàlla na ki yàgg te wér. Hmm. loolu il faut que dañ koy mettre en action. doxale ko très ba nga xam ne bu ñuy ñëw. dañuy protéger ñi nga xam ne dañ fay fekk ñi ñu ngi fay fekk tamit aussi ñu am benn doxalin boo xam ne. Ah, ñu par obligé ñi leen fay fekk. ñu respecter aussi les mesures. incha allah docteur Abdoulaye Bousso RFM mi ngi lay gërëmati di la sant. jërëjëf jërëjëf merci docteur Bousso la ñu àndaloon mbokk yi ak yéen ci RFM mooy directeur centre des opérations d'urgence sanitaire ci ministère de la santé ñu koy gërëm bu baax encore une fois di jaajëfal kilifa yi ak euh, personnel médical bu Sénégal euh, ngërëm gi du doy ndax euh, fi nu jëlee mu des rek ni nu koy waxee suñu borom mottali lépp yaakaar bañ a tas waaye ñu continuer taxawaay yi 15 démb 129 guéris bu dakkul rek Ablaye. léegi mu baax donte bu xawee a yéegaatit bu nu bu nu perdre espoir ndax yëf yi daal ñu ngi sentir ne dangar gaa ngi wàññeeku <laughs> ñu daal di egsi ci mayam deret gi nag dafa am solo fànn woowu mbokk yi ndax xam nga don de sang Sénégal Euh, ci jamonoy euh, mbas mi nu ne jamono ju nit ñi euh, ragal a dem hôpital xam naa ndax kumpa rek ndax nit ki lu ko ump xëy na waaye bu nu amoon information yëpp daañ xam ne kër docteur ñoom amat nañ ak le fa malade ya nekk fi nga xamante ni fa la Covid ga ne loolu lépp donc tey la wàllu war a gën a aay ci maye gi ñeel deret mi. ndax ni ñu koy waxee du du lu ñuy defar ci usine ak yenen ñun rek ñoko mëna mën euh, kon di ci soñu ñëpp commencé ci man mo waral ma dalal kenn ci wa euh, association bi di Precious Gift euh, Malik Niang Aladji malik ma ngi lay ziar jërëjëf di leen félicité en tant que jeune ngeen taxawal association bu ni mel lan lan moo waral loolu yéen ak ñi ngeen ci àndal lu waral ngeen gis ni daal war ngeen ni taxawee ah, tout d'abord maa ngi leen di nuyu seen seen léegi comme ni nga ko waxee ñun benn association dañ bu nekk fii principalement à Dakar. Mhm. ay ay ndaw Sénégal lañ. léegi dañ gisoon ne euh, Sénégal dafa am problème problème ak euh, don de sang. Mhm. problème mentalité. problème problème donneur effectif. léegi loolu moo taxoon euh, en 2013 ñu ne est-ce que du ñu jéem a booloo jéem a mener ay action yoo xam ne dina permettre banque de sang yi kenn amati problème problème donneur. Mhm. loolu loolu moo taxoon ñu créé association bi. 2013 ba léegi alhamdulilah ñu ngi liggéey. Hmm. ñu ngi jëm kanam ñu ngi sant yàlla daal. adhésion gi am maanaam ndaw ñaa ngi ñëw di leen fekk si. waaw ndaw ndaw ñi ñu ngi fekk si ñu ngi adhéré si association bi mais ñi ci ëpp ñu ngi participé si si activité association bi te hmm. ñoom lañ gën a soxla. ok parce que instant yii par exemple euh, en en juin après weeru koor gi oote woon nañ benn événement CNTS mais 300 personnes hmm, ci centre national de transfusion sanguine exactement. 300 hmm, hmm. personnes dañuy gis publication réseaux sociaux yi. dañuy rek dinañ ñu ñun loolu lañ internet comme fa la nuy fa la nuy yendu euh, dem sensibiliser am solo. waaw waaw waaw suñu action sensibilisation yi gën a bëri. Mhm. ci ci internet bi ci réseaux sociaux yi. Mhm. parce que xale yi lañ gën a ciblé. dañoo bëgg comme génération yi ñun suñu genre yi wala suñu suñu mag ñi. ñoom am nañ déjà ni ñuy gisee don de sang. Hmm. xale yi dañuy jéem a convaincre jéem leen wan li nekk si don de sang dëgg-dëgg comme ça ñoom ëllëg bu nekkee ay donneur. Sénégal doo amati benn problème deret incha allah. Hmm. mën ngeen gën a wàcc sax ba ci tout tànk ya ah, ci ci jardin ah, d'enfant gi euh, ci ci primaire gi parce que dafa am yoo xam ne Sénégal pour ñu jubbantikoo <laughs> sama maas gi hmm. dërkis ba pare moom. Euh, taxu ñuy wax mais pour que les les générations futures jikkoo yenn yi léegi lañ ko war a tàmbali di ji ci gune yi. waaw loolu loolu loolu mooy si suñu projet yi. Eh, am na war nañ commencé benn campagne sensibilisation xam naa du yàgg noonu noonu. Hmm. incha allah ñu dem ci école yi école primaire yi. Hmm. école si collège yi lycée yi. wax ak wax ak xale yi. Hmm. jéem leen jéem leen convaincre jéem xamal luy don de ah. comme ni nga ko waxee rek ñoom bu ñu ñoom bu ñu bokkee rek. oui après problème bi du du amati incha allah. dëgg la euh, xamu leen lan moo tax nit ñi xaw a di hésitant ci wàllu maye gi Sénégal euh, c'est culturel euh, liggéeyu leen ci ak waa kër docteur ba xam lan moo tax nit ñi jik wala ñàkk jikkoo rek la. li ko li ko waral dafa bëri. Hmm. am na ñenn ñi tàppet de tàppet kese la <laughs> ñenn ñi si gën a bëri dañ lay wax ne dañoo ragal piqûre bi dañuy ragal piqûre waaw hmm. ñeneen ñi niñ jàppee niñ jàppee don de sang la parce que hmm. di nga wax a nit mu ne la man sama deret du du jaxasoo hmm. loolu loolu question mentalité la culturelle la waaw loolu culturelle la ñun ñëpp dañuy waxtaan ak ñoom rek war ngeen di nekk si don de sang Euh, wax leen effectivement. mais ki wax euh, loolu ki wax loolu de dafa war dafa bon ñaanaluñ ko kenn ñaanaluñ ko sunu bopp mais xam nga àddina dafa tëradi. te urgence fu ne lay jugee. kooku wax loolu amul assurance ne que du ma sa feebar du ma sa accidenté du ma sa nangam du ma sa du ma sa ah loolu de xam naa ko koy wax moom. <laughs> waaw moo tax ñooñu ñooñu généralement ñu gën a neex a waxtaan ak ñooñu buñ leen buñ toogee waxtaan cinq minutes rek dinañ d' accord ne war nañ mën dem may dina rek. Ah. am na am na ñeneen ñoo xam ne nag dañoo ragal a xam seen i résultats. parce que boo demee mayee deret xam nga boo mayee ba pare euh, waa waa centre de transfusion waa waa banque de sang bi ci boppam dinañ analyser deret bi après wax la yan yan jàngoro ñoo nekk ci sa deret mm-hmm. am na ñu bëri ñoo xam ne duñ ko sañ a wax ci kaw mais loolu mooy tax du ñu dem mayee ji deret loolu la ñu ragal waaw te loolu loolu seen seen avantage bi ñoom ndaxte mm-hmm. boo xamee li li nga feebar nga dem nga saafara ko mm. loolu day day yokk sa wér gu yaram la dëgg la en tout cas il faut que le Docteur gëna travailler ci nit ñi gën ko jox bop hein ah. Sénégalais duma mm-hmm. du ni la faute euh, euh, aux hôpitaux mais nit ñi ragal nañ l'hôpital trop. Mm-hmm. wa ragal nañ ko mom ragal nañ ko bu baax a baax. waaw nak ma naka la def ba mu di leen attirer. Hmm, surtout l'accueil aussi ngeen ngeen wax kook seen mag ñi aussi nit ñi sawar ci accueil dem hôpital bañ fa yàgg ñu lay faale di la nab nabé da ci am solo de. waaw waaw loolu loolu loolu ñun ñu ngi si liggéey bu baax ak waa waa Samb transfusion. Mm-hmm. boo seetloo boo fa boo fa demoon par exemple en 2013 ak nga dem fa actuellement en 2020. ngay mm-hmm. gis ne lu bëri changé na. parce que ñu ngi jéem a gën a gaawal seen procédure. ñu jéem a former seen personnel bi ci nekk si accueil bi ñu koy jéem a convaincre jéem ko wax ni muy doxalee ak ni. Mm-hmm. loolu yëpp pour pour pour. facilité accueil yu yu donneur yi. Ah. parce que nit ki warul jug dem nay deret ba pare di fa jugee kii xool bu bon. oui vraiment. waaw ah, ah. euh, ak Covid bi de jamonoy pandémie mbas bi ñu ne euh, yëf fi gën na jafe de est-ce que euh, ñu Sénégal ni deret dafay dafa gën a manqué wala wala alhamdulilah. ah jafe na trop trop sax. Hmm. situation bi instant yi ñu ñu urgence de dañ ko dul wax rek waaye métti hmm. na de. Hmm. ndaxte donneurs yi xam nga donneurs yi gën a bëri étudiants yi la woon. waa mais bi ñu tëjee campus bi étudiants yi dañoo ñibbi. kon ñoom mayeetuñu yeneen donneurs yi mooy suñu genre yi nga xam ne dañuy xëy. Hmm. bu ñu yenn saa ñu jàdd seen test dem maye ji deret. Hmm. ñoom déjà ragal nañ génn. ndax Covid bi. Hmm. aussi ñu ngi télétravail. ok ñu ngi télétravail kon euh, waa entreprise am na entreprise yu bëri yoo xam ne dañ daan wootee collecte di organiser si seen bureau mais comme ñu ne nit ñi nekkatuñu ci bureau yi. kon mënatuñ fa dem maye. dëgg la. actuellement Dakar Thiès région Sénégal yëpp am problème de actuellement. Mhm. donc situation est compliquée. depuis depuis disons un mois nous avons une campagne de communication sur l'urgence actuelle bi. Mhm. wax convaincre de mhm. ne que avant avant parce que c'est une période un peu compliqué côté côté France waaw ah. euh, loolu rek mooy seen occupation wala seen euh, association dafa yëngu ci yeneen secteur waaw ñun principalement don de sang la ñuy def. ñun li ñuy def mooy sensibilisation déjà. sensibilisation bi c'est connecté ci ci réseaux sociaux yi wala. Euh, ñu wàcc ci benn ci benn gox waxtaan ak nit ñi. très bien aussi dinañ organiser ay collecte. parce que loolu mooy tax poche yi dugg ci biir ci biir banque de sang bi. tey jii am nañ plus d'une centaine de collectes yu ñu organiser très bien. beneen aspect bi mooy par exemple yow tonton El Hadj Assane boo xamee kenn koo xam ne soxla na soxla na poche. Mhm. mën nga ñu oo. ñun ñu oo suñu ñu ñu jàllaleel la message bi. Mhm. parce que ba tey jii am nañ benn base de données ay donneurs ay donneurs au plus de cinq mille donneurs ñu ngi suñ base de données. Ah. léegi dinañ la xoolal par exemple boo soxlawee au moins. Mhm. kan moo si au moins. te mën a maye. ñu contacté ko wax ko mu dem may dem maye pour sa donneur boobu noonu. ah loolu am na solo ñun loolu la ñuy def. mais dinañ am am nañ yeneen activité tamit yenn saa par exemple euh, ñaari weeru koor yi passé. Hmm. def nañ ay ay activités de don don de ndogu. Hmm. avant ça euh, am na benn bibliothèque boo xam ne jàppale nañ leen ci ay livres yenn saa yi daal ñu ñu ñu génn gaam. ok <laughs> am na solo léeg-léeg ma dégg ñuy jàmbat naan dañ leen bëgg jaay ay poche de sang dañ leen di loolu de xanaa aussi war nañ ko combattre ci bu dee am na ah man parce que man association depuis 2013. Mhm. depuis début bi ñu ñuy wax poche. mais mhm. man gis kenn ne. Mhm. na ma poche sans transfusion. ok man je ne pense pas waaw. na te ñun information bi ñu am mooy information officielle bi ah, mooy euh, process procédure bi sans transfusion mm-hmm. foofu ku dem yóbbu yóbbu bon de commande gars dañ lay jox poche duñu la laaj duñu la laaj xaalis ñun loolu information boobu la ñu am. am na solo en tout ah. cas ñu ngi leen di encourager bu baax Malick vraiment toute l' association seen jigéen Thiouna ak ñëpp ah vraiment taxawaay gi am na solo en tant que jeune. Euh, débat yi ngeen di fexe ba di ko jéeme ci yu ni amee solo moo gën na ci internet gi yendu fa daanaka ca bu ñu la laajoon ngoon le bilan doo xam sax loo fa liggéey. waaw mm-hmm. ah, vraiment on vous encourage. Merci ah, jërëjëf ñu merci Malik mm-hmm. Malik ñan ak ñun association Précieuse Jeff, cadeau précieux li ñu mayam gi ak di ci euh, rek taxawu hôpital yi mu euh, ak RFM fi de fukki rek euh, bu auditeur ñu gi di télévision Futur Média ñu caméra ku ne télé nag ne di ngeen gis xam naa dañuy wër lu nu wane ñii waa Almadies ngoog soyez les bienvenus jërëjëf Abdoulaye Diop 88 628 14 14 wa rahmatullah. waaleykum salaam. El Allah Assane ñoo ngi lay ziar. ziar di nuyu sénégalais di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada Allah alaaji asan ndaw di wax si deret bi koy ziar bu baax a baax kontaan moom en tant que ndaw. ak kuréel kuréel bi yëpp. Mhm. sooy xool taxawaay boobu ñuy def noonu noonu la caisse solidarité tamit créé groupe caisse solidarité pour don de sang ñoo ngi koy def hôpital régional. ah très bien. kon dëkk bi dafa laaj ñun ndaw ñi ñu taxaw ma kor a lu ba nga xamante ne sunu réew ñu mun cee jàppale sunu askan surtout sunu santé. Mhm. pandémie lii nga xamante ne mooy coronavirus. soo xoolee tey jii askan bi ñu ngi liggéey liggéey bu am solo médecins yi aussi tamit ñu ngi liggéey liggéey bu am solo mais Alaaji Assane am na lu nga xamante ne moo ngi dox si biir réew mi moo gën a metti coronavirus. Mhm. ndax autoroute bi nga gis mu nekk autoroute bi nga xamante ne maanaam sala doomu aadama yi di jaar am na ay def ko ci ñaawteef yoo xamante ne seen moto lañu ñu yore di dogale nit ñi ak seen i jaat. Mhm. ñoo ngi félicité gendarmerie Sénégal ñoo ngi félicité police Sénégal ndax ñoom. fexe nañ ba teg si sept personnes loxo. yan niveau la. te ab gendarme la ñuy fekk arrêté ko mu def coup de sommation arme ñu daw dugg si biir ñax mi ñu nekk euh, mooy niveau Thiès. autorité am na ñoo xamante ne sax tey. booy booy dugg cees la. ba ñu leen téye dañ leen andi police parcelle bu Thiès sept personnes. ci biir autorité bi la ñu nekk mais. policiers yi ak gendarmerie ñoo ngi ci def liggéey bu bi nag ñoo war a encourager suñu police. Mm-hmm. jàppale suñuy ne ñoom dañ fay nekk pour jàppale ñu. état bi aussi tamit jox ay possibilité ba nga xamante ne tey jii ñu mun a jëflante ak jëfkati ñaawteef yi. merci beaucoup ñu leen xam-xam ëpp ñu leen fit gën ñu leen bëgg réew mi. jërëjëf Boubacar maa ngi nuyu docteur Ndiaye ci kees ak euh, sëñ Saliou bu baax nga xam ne moo jiite ndaw euh, euh, daara yi sëñ Saliou. jërëjëf jërëjëf jërëjëf wàllu sécurité am na solo <laughs> Ablaye waaw xaaj njóogu moom jël route nationale bi rek bàyyi buy dem Pout <laughs> dama ko bëggoon laaj ban niveau Thiès la gars yi di karaté bu ko defee Aba wax ma ban moo ci gën a gaaw jaaree Tëngéej wala jël péage asalaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay jaar sëñ bi. laaj. laaj sant jërëjëf waaye kooku. baalu àq bu leen baalu àq. baal nañ la nga baal ñu. di rafetlu seen liggéey lool lool lool. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. jërëjëf. waaw mais El Hadj Assane man dafa am lu ma jaaxal. Mhm. bon. Mhm. léegi euh, dama damay dégg chaque jour si sa si say wax. Mhm. nga wax ni ku gis na ni nena ngi. waaw mais man fi mu Mhm. événement religieux yi nga xam wax ni ñoo ngi am. Mhm. dañuy tere ay nit ay centaines de personnes yuy dajaloo. Mhm. naka la ñu mën a accepter euh, euh, euh, mille ay de personnes kon ñu mën a dajaloo. waaw man loolu xaw na ma jaaxal lool. waaw léegi man loolu daal. man ah, bëggoon naa ci ay leer parce que suñuy suñuy bañ par exemple ci plage yi ñu ni xale yi buñ ko dajaloo. waaw. la place yi léegi fi ñu vide mais est ce que xalaat nous après. Mhm. événement religieux yoy naka la place yi demee ak naka la nit ñi di doxé ok. waaw ok xamna kilifa yi dégg nañ la ñom ñi euh, di amal tere yeeg nangu yi 88 628 14 14 Radio Futur Media, RFM.

mais ku sensibiliser ñu ci corona bi. Ah, di leen wax li ma wax maam seen rek directrice su Gas FM bu Thiès leen wax ne yàlla moo leen di fay mais mm-hmm. kenn mënu leen a parce que li def moom salaire salaire salaire leen fay yàlla rek mënu leen fay. di remercier docteur Bousso di remercier personnel médical bi. Mm. li nga li nga wax sànq dafa am solo. ba mm-hmm. nga li boo defee dara mm-hmm. mu mu téye da koy da koy wone da koy wone lu positif jël deuxième benn

mën nañoo maye wala mënuñoo maye. ok cause boobu da léegi da ngay bëgg a da ngay bëgg a dimbali mu def son le sang mais ragal parce que parce que bañ mu dal. waa mhm. di remercier ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf jërëjëf Madior insécurité bi ñu wax ci autoroute bi am na it beneen version ci wàllu euh, dafa am benn benn audio buy jàll mais euh, après vérification kilifa gi ma def signe ne daal euh, gisu ca lu wér ci wàllu ngaañ-ngaañ foofu donc ñu def attention ci information yi mais noonu la information dañuy def recoupement mu jóge fu ne bu ko defee ci mujjantal ñu am yi gën a wér asalaamualeykum. waaleykum salaam El Hadj Assane. waaw sëñ bi. waaw ñu lay ziar baax de. yàlla yàlla nangu ziar. ah sa sa auditeur bi moom da nga koo bàyyi moom parce que bu loolu depuis deux euh, yàlla lu bëree bëri bëri. waaye kooku la kooku ku mu. Omar Faye la réew Maawa. ah Omar Faye yéen waa réew Maawa kay yéen a ma bàyyi. <laughs> ñu ngi lay ziar bu baax a baax. newoon ci tool yi. waaw waaw da nga newoon ci ci tool rek walaay walaay na ci waa Bawol yëpp. waaw ñu waa booy ñëpp ñu ngi sant ñu ngi sant ñu ngi a baax. alhamdulilah. na def ak coono yi. ñu ngi nii rek di góorgóorlu. Ah, waaw noonu la noonu la dina baax jàpp see bàyyi rek jàpp see <laughs> allah. <laughs> Eh, eh, yow moom dañ lay ñaanal ngi yàgg si lool fay ñu bokk lépp. ndax euh, vraiment liggéey bi rafet na te tegu na ci yoon te tegu na ci lislam encore. alhamdulilah. vraiment vraiment ñu ngi rafetlu taxawaay bu baax ci jërëjëf Omar jërëjëf. Mm-hmm. merci mm-hmm. amin amin yàlla yàlla boole ñaan jërëjëf Faye jërëjëf. pour ndox mi egsi fa. yow Omar jaawale woo mag Serigne Mbaye Thiam nga foog. <laughs> Ah, léegi baal ma ma <laughs> jottali dinaa la ko jottalil Serigne Mbaye Thiam dégg nga. monsieur le ministre waaw mu yor ndox mi no dina dina ko dégg boo dem dina dina ko dégg de ndax service bi ministère ba dina am ñu fay déglu RFM kon kon mu ngoog yóbbante bi dal naa jërëjëf Faye réew maaw Ablaye ñu yëkkati jotaay gi di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm mbokk yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp di euh, gërëm ak a ziar soxna Yacine Pouy bu service